nuyoo fii ci kër sëriñ Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal su ngeen gisee jataay bi ak xarkanam yi ngeen gis dangeen xam ne ndigal li daa jóge ci sëriñ Sidi Mbacke xalifa Cheikh Abdoul Ahad moo ñëwati ngir fàttaliku gi ñuy fàttaliku ak ñaanal Cheikh Abdoul Ahad ñaar fukki fan ñett ci weeru sawaal e, jub si na jege si na e, saa su jubee nag commission culturelle bi nga xam ne sëriñ bi moo ko tànn ci ndigalam ci jiital Cheikh Abdoul Ahad Jaxate ak euh, bokk yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ci biir commission bi di ay woroomi xam-xam ak ay jàngalekat ak i gëstukat ngir sëriñ bi daf ñoo sant ci ne Cheikh Abdoul Ahad géej la kon saa bisam jubee jamono laaj na ñuy càmbar ay aw doxiinam ak i jikkoom ak jëf yu rafet yi nga xam ne daana ko def ngir ndaw ñi man ciy jariñu loolu nag mooy tax ñuy tànn kilifa yi nga xam ne dund nañu ak moom te man ñu cee indil jàngatal ñu yu bari ci ak dundam ak ay jikko ak ay yuñ mën a royee ci moom yoo xam ne ndaw yi danañ ci jariñ kon teew na fi commission culturelle bi sëñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar sëñ Abdoul Ahad Maam Asta Cheikh Abdoul Ahad Ka sëriñ Abdoul Ahad Bousso mu sëñ Abdoul Moutalib ñu fekk fi tamit sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Oumy mii ñu nekk këram. xam naa moom la ñuy teg nuyoo bi ci loxoom moom mu jàllale ko su ko defee sëriñ bi e, ni ma ko waxee léegi ñëw nañ fi ci ndugalul sëriñ bi sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Ahad ngir taatan ci yow ay kàddu yoo xam ne da ñu ko mën a baaxee ci Cheikh Abdoul Ahad ci digganteem ak Cheikh Amadou Fadal ak sa diggante ak moom ak yi nga xam ne dund nga ko ci ay mbir yu am njariñ yoo xam ne jamono laaj na ñu fàttaliku ko te dund ko bokk na ci li tax ñu. ñëw fii ci kër Serigne Cheikh Oumy Mbacké mu Cheikh Abdoul Fadal ngir eh, jamono na ak Cheikh Abdoul Ahad waaye nag dund ak moom ginnaaw Cheikh Abdoul Fadal mu nekk ci biir Cheikh Abdoul Ahad jëflante ak moom sëriñ biir jëflante ak moom mu dund lu bari loo xam ne jànge na ko ci moom loolu nag kon jaadu na eh, lu mel noonu ñu balluloo ko ci moom ngir askan yi man cee jariñu kon sëriñ bi dañ lay jox kàddu yi bismillahi rahmaani rahim euh, alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi tey sant sëriñ Tuubaa tey nuru sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moo toog jataayub Cheikhul Xadim ak mbooleem fu sëriñ Tuubaa def dara rek tey nuyu sunu kilifa yi nga xam ne ñoo yor sunu baatub kër muy Cheikh Mamadul Bachir ak sëriñ Abdou fataam mi yor kaddu gi mu tegal ñu ci loxob sëriñ Abo mi sunu sëriñ Euh, waaw sëñ Abdou li nga wax déggees na ko mënees na koo xamee nag waaye da nga ne damaa ñëw kër Serigne Cheikh mi waaye da nga naan ñëw naa kër sëñ Abdou fii moo moo ñu ko jox ba koy joxee nag dafa woo sëñ Mewndu woo Jib Ndiaye. ne leen damaa bëgg ngeen dem ci hôpital ba la féete penku doon tooloon tool soxna soxna Awa Bousso nit boo nekkee moom te bëggoo mu jëppi la lu ne dañ cey ne te moom moom may de muy suñ fallu te lañ ma nettali ñoom bàyyeewuma dara waaye man bu ma ko bàyyee dara loolu la waxoon daal su ngeen demee na ngeen jël njabootug sëñ Fallu gi boole leen dennale leen bu ngeen noppee na ngi teg waa kër sëñ Afe ñang yi bu ngeen noppee teg ci waa kër sëñ Afe Buso yi mooy fii nu dëkke kon fii bul ne kër sëriñ Cheikh bi da ngay wax kër sëñ bi laxaat man nag la fi sëñ bi jógee 69 laa ñëw Touba Belel waaye ku ko miin da nga gore da nga bëgg sëriñ bi da nga doon ab taalibe loolu moom lu ma xam ci moom la la ca des nag lu ngeen ma ca laaj tama xam ko danaa ko wax waaye ku bëgg lu baax la te nga as gor la ab jullit la am na ci loo xam ne nag kenn mënu ko yëg Sëñ Tuubaa doo ko jaarale ci moom moom ñële moom ay mag lañu waaye moom nag fi mu toll ku fa toll te li nga yor nga nanga koo bokk ak ñi nga bokkal da cee bëriwut yokk na nag wàññiwut moom. Cheikh Abdou Lahad ku ko xamoon te Tuubaa bu xëyee toog ci penti bi ànd ak sa sa sa sëtu sëñ Abdou Lakaram ak sëñ sa sëñ sëñ sëñ Mourou Mamoun Niang Abdoulaye Karam day xëy si bàcc gee koy jëli ñu ne fa. 68 69 70 la ñëpp ñibbi si Baye Fall yi ñoo di defar kër ga fa la ma fekk mu ni Cheikh Jaxate kay dëkk indi sëñ du jox ko mu sëcc ci Cheikh Jaxate am mbedd dox seen diggante mu ne sëñ Moussa Alima ñëwal di dëkk. Cerno Faal ñëwal dëkk sëñ Fallu Njaay xebar ñëwal dëkk daaree joo njóobeen yi ñëw dëkk ak ñoom kër Moor Ñas ba ci wàcc yéen yu ndaw ñooñee mu des fa ab diggante boo xam ne kër si Asa Dogo moo ci sos nag ñu ne fa ak moom waaye ku gore la ku bëgg lu baax la nii gone mi mel il mu ñu mel ni waaye nag kenn mënu ko dab sëñ Fallu nag amut sago ci moom sëñ bi tamit amut sago ci moom man lu ñuy defal nit moom ma ko defal moom ndax ba may fay ñëw booba xale laa jóge ci xalifa ak sëñ Fallu ñëw ci xalifa ak Blaat ak ñam toll xalifa gi yombut de xalifa piir noonu lay mel ndax ñëpp ca bokkoon. xanaa xamoo ne bi muy nekkee Touba Belel di sancal nit ñi dafa toog ba mu yàgg moo woo suñu meew ko damaa bëgg nga yoral ma dëkk bi boobu ma ngi koy jàngal muy Touba mu yor ko ba yàgg mu boole ci coopérative ba. ba yàgg mu ne ko dama bëgg nga ñëw dem Touba ba mu ko joxee dëkk bi tam bàyyiwu koon moom dong dana ko dama bëgg nga dem ci doomi Sëriñ Touba yi kenn ku ne nga nag ma fa tànnal ñaar wax ko ña nga xam ne ñooy doomi Sëriñ Touba yi kenn ku ne tànnal ko ñaar indi ko mu boole leen si mbiru ne leen dee leen déglu lu ñu la wax na nga di ko wax ma musta beru de musta bëgg yëfi boppam waaye boole woon na ci ñëpp laa wax seere ko nag day jafe ci man waaye sama xarita ñoom la cay dolli ko nag mooy lii nag mu bokk ak nit ñi ak bokk ak ñu njabootu sëñ kenn ku ne jox na lala la moom la ca des nag mooy nu tàbbi ci biir bis bi te defal ko lam nu doon defal rek la ma wax ne sant ku ma deful dara xarab ko la loolu mooy dëgg ku ko ku mu defalul dara amul ndax bari na ci ñun ñii génération bii toll am na noonu jàppee sëñ Tuubaa bu toon moom dañ koo jàppee wax baaxu jàmbur nag ci wax baaxu kenn dara danoo bokk luñ bokk sëñ bi boole ñu ci boppam waaye du tee nag moom jëf na fi loo xam ne ba na tukkeen du ko fàtte moom rawatina xool dari bi rek sëñ bi xoolal yokk bi jumaa ji leneen loo fi gis lu ne mag ko defoon waaye nag la yokk moom moo ko fi njëkk a tàmbali moom te nag yokkut dong nag yemi ci jumaa ji dong ci nit la njëkk a yokkee daanaa dégg ca mag ñi ñuy wax ne fii sëñ bi bi mu leen wooyee neen dama bëggoon ngeen dikki nag kapp seen kii de la dal kële laay bañ mu dal kii de moom sëñ Fallu ko wax ndax moom kenn waru ko ci mbokk man nag dama bëgg ñu ne ko kapp rek kuy kuy génn yam ci ñun kuy dukk yem ci ñun daal di ñëw ne leen da ngeen di ñëw nag mu boole koog sëñ Saliou fi ñu dëkk boole koog sëñ sëñ sëñ Mourtala Nefe sëñ Abdou Khadir fii am na ku ko moomoon ci ñoom ñaar ñu waaye dañuy nattable comme doon laa xamul ndax ma ko mu doo ko jox sëñ Baara jox sëñ Tolofat Dia jox sëñ Abdou Borom dër bi doo ko dëkk fii sëñ Abdou Lahad ne tey falakaar yi laa taxaw ak yafa daa xew waaye ku moom dara boo koy jël kenn mënut a tee ba doo ko jël moom nag bi mu dëkkee fii mu dëkk moog sëñ Saliou musta lekk bàyyi sëñ Fallu bu ma see togg añ dana tibb yóbbu bu ma see togg reer dana tibb yóbbu ndax nee ko kuy kuy ci yëfi jaamur loo am da nga koy bokk ak moom. toppee moom xam nga cër la ci nit du jàng ne pour comme ku jóg rek man ko ñoom nag xam nga sëñ Tuubaa dafa def ci loom ñu nekkul ci nit ñi moo tax ñu man lañ man waaye nag du tee ku bëgg dara moom nag mat na sunu kilifa ndax dëkk bii nu ne de lu sëñ tubaa am yu am baat dugal na ca baatam te xam nañ ni dugal na ca baatam muy dëkk bii ak njaboot gii ak dong yii ak ak ak yoon yi ak mbedd yeeg dëkk bi rawatina martokaas bi ba ko fi tojee loolu dégg na ko waaye tey loo ci dégg lam ca doon wut am na ca lu ko kawe njortam waaye fi ne nii yokkuwaat na leneen dikkat na lu kenn xamul lu mu waaye du tee nag ñu ne ko allo eh, jaajëf rek sëñ Abdou Lahad daal moom ku ne amel na ko njukkal leen nag tuddee rek lañ leen ko def waaye lim defal ñiñ tudd ñiñ ko tuddee wut benn ci man mii yéen defalu leen ko moom yàlla na ko yàlla fay te njabootam gi mu fi bàyyi tam yàlla na leen yàlla suturaal te boole leen ndax nit it nag boo sañoon boo ko bëggee ci sa biiru xol doo dégg kenn ku ne jam ci moom dara kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax li ma xam ci moom nag bari na ci loo ne du ma ko mën a wax waaye ku baax la de ci ñëpp laxat kenn ku ne la nga moom dala koo jox te yéene la ko nag rawatina nga ndaw yii jëflante wut ci nam toll ndax bu ko bu ko bu ci jëflante woon dana metti waaye dafa jëflante cim xel nag ci ñëpp laxat ku amoon xel la ku amoon fulla la ku amoon fayda la ku amuk dog la woon dëkk bii moom ni mu ko defaree ginnaaw suñ fallu keneen ku dikk rek da ngay toppaat ci loola rek ñee nag ay mag lañu moom Cheikh Mouhamed Moussa ak sëñ Fallu moom doonuñu gone waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo tolloo ñoom li ci simlaat def nit du ko ci defaat moom waaye nag njab suñ ñun ñii nga xam ne mooy génération bi toll neen mel ci Serigne Touba ak yéen ñi nga xam ne yéen yéen Muxaddamatul Xidma nii ngeen tënkoo ci Serigne bi moom rek lañ koy royee sëñ bi da ngay xool ni mu daa def sëñ bi doon sëñ Touba ak fi mu toll xëy toog ci suuf ba jant bi so te du jóg ci Touba bi la ci digg penc bi ci neex maa nit ñi dikk ka dem ak dikk mu toog fi toog sóonu ci suuf. te mooy sëñ Tuubaa kooka kooka yëgali na lim yor lu ma doon waaye kam yore xam nag mooy kan moo tax li mat a def daal mooy roy leen jéem ko kenn du ko man waaye fulla mooy jaay jaxaar jom mooy fexe fexe ba wutal la lu baax fexe ba tamit nag ba jikko ju baax nga am ko moom ku ko miin da nga ko rey ci moom nit ku baax la la cay dolli ko nag mooy dëkk bii moom am na boroom te lam ca waxoon nag jërul xeex jërul xuloo ka mat la mata ka mata defar la war a defar moom dana ko defar. dafa am ku ñëwoon sëñ Fallu nag ne ko si nga ko ah, yaa ngi may tooñ koo bokkul ëllëg fooy dekkee boo ne ko sama xarit nga yaa ngi may tooñ looloo dal si ñëpp laxat àndut ak kenn ku dul li nga li nga moom rek la àndeeg yow ñooñu itam la àndoon ak ñoom rek da nga ma daa dégg bu daa wax ba noppi day jékki-jékki yéen da ma jégal kët ma wax sama mbokk tali bi ngeen daa dégg loolee nag la ko waral mooy day wane ne léeg ku dikk nag loo ànd ak ma na ko ànd ak yow waaye nag am fulla la woon waa doon wax ci ko wax ci suuf rek lu may wax mën na ko wax adduna bépp dégg ko moo taxoon ñëpp wóolu ko ma wóolu leen rek waaye nag musta wax it nit ci biirum néeg lu mu du mën wax ci penc ma sëñ laxat lu muy wax ca kaw la koy wax ñoom tam nag fañ ko tegoon da leen ni musta wax lu lu lu nekkut ci moom nit ki waxtu boo ko dee wax lu nekkut ci yow rek mën na laa yab waaye boo ko dee wax li ne ci yaw du la yab mukk loolu moo taxoon kenn yëbu ko la nam daa àndee nag ñuy bokk di def lépp da ci daa jël engagement am responsabilité loolu nag dafa jeex ci àdduna moom jël ko ni mu ko mane kenn du ko def ci àdduna moom dafa am ku dikk ne ko man de daa am lu waxante woon mu ne ko kañ la woon mu ne ko bis sànga mu ne ko wax nga dëgg de mu ne ko dang ne ma woon bu sa bët xonqee naa ñëw ci yow mu ne ko ah mu ne ko sama bët xonq la nangam dafa xew mu ne ko noo ko bëggee mu ko dama bëgg mu saafaraw mu ne ko léegi toog woo wàcc mu ñëw mu ne ko dama jëli li ma diw wool diw ne ko na ànd ak diw ñëw fii bàcc géey dem ànd ak diw dikk mu ne ko kii lu mu def ñu ne nangam ak nangam la def mu jël téléphone am woo Abdou Abdou Diouf ne ko kat foofu mu nekkoon maa fay ne tey mi ngi fii ci man responsabilité bi kenn jëlatu ko moom nag lim doon jël. benn nit du ko jël ci àdduna benn nit du ko wax ci àdduna ndax dafa ñeme woon te lim nekkoon la sëñ tubaa waxoon ci moom ne am na mu ci moom yaakaar moo taxit loolee nag la nit ñi delloowaat ko ko ndax waxtu woo defee la sëñ Tuubaa loo mën mu defal la jom xam nga nit bu bu yeewoo lu mu aw yeew yeewatee ko ko may moom dafa teeloon a jàng sëñ Tuubaa topp mag ñi nangoo na lim yoroon li ñu yoroon lépp jox ko sëñ Tuubaa moom la ko waral mooy dafa xiir xanaa xam ne sëñ ku ko gën a xiir ci àdduna ma bu la dee jox da ngay yaakaar ne yow danga la la war a jox ci àdduna moo tax jëflanteeg moom day jafe mag ñi nag dalee na xiiroon ci boppam ñoom itam ñu xiir ko seen bopp moo taxoon lu ñu am jox nañ ko ko te yàlla tax mag ñi nag kenn mosu ko ci jëppi moom ndax dafa nangoon a am kilifa nangoon a toppe nangoon a jël yaakaaram teg ko fi mu ko wala teg ba tax na bi yëf yi egsee ci loxo mu man ko mu mën koo téye ni ko téye woon daal dana jafe ci àdduna ku ko mën a téye ti moom dëgg nag doxati bëli nañ ma jégal nag kenn ku ne la nga dund ak moom noonu nag ku mel ne man mënu koo fay ñun ñii fii nu dëkk daal moo nu ko jox du kër sëñ Fallu njaboot gee fi ne nag waaye dafa jël bakkanam dana waxoon sëñ Maodo ne ko na ngeen fex ba gone bu kenn jaay na ngeen ci teg seeni bakkan jim jaay ma ko nettali kon tey su ngeen demee ba bis bi ñëw bis bi kenn moomu ko man nag la ma ko warlool ba ma sañ sampee kër ak léegi maa nga ca ajuma jot dinaa togg añ yóbbu ko ci barabam bi xam nga mm, boo gisee ku mel ni Serigne Modou Mamoun Niang këram niñ ko miine miine wuñ ko suñuy kër mooy booba dajale téere xew nun ngoon yëpp fa lañu ñu ne bu ñu xëyee dem dajale ba ngoon jot yi sëñ laat moom si yi sëñ laat moom sëñ sooy bokk bind yi nangam yi nangam yi jóge nangam sëñ laat di mool ci biir kër ga loolee fa la nu fekkoon te lenn loo xam ne ñu ni suñu kamil yëpp mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci bi te yooyee dong nag mooy yëfi mooy yëfi murit loolee nag moo waral Sëñ Abdou Lahad moom mm, lim siq ak sëriñ bi bu ko ko sëriñ bi fayee léppam xolam dana sedd ndax lu mat a defal sëriñ bi rek defal na ko ci la ak la manut ñun ñii fi mu ne lii tax ngeen xiir ñu comme yéen yi ngeen doon ay di déori kuris nangam nangam ci Sëñ la ndax booba am na nu meloon waaye bi mu dikkee da ko defaraat boole ñu ci ñuy jàng ci jumaa ji wëlbatiku ne ci daari kamil di dajale ay téere ak lu ne lañ daa def te loolee si laa tax ñu mën ko am na ci loo xam daal sëñ bi des koy yëg waaye des ko mën a wax. man ne am naa benn bis boo xam ne nii fanweeri seet fekk na ko laat gay xar ñoom laat gay ngoox ñoom gone yooyu nekkoon ci daara ja fa la ma fekkoon noonu la daa def la cay dolli ko nag mooy. ñii nga xam ne ñoom la bokkal Sëriñ Tuubaa da ci bari ñoo xam ne nii neexu noo jaxasool nag waaye fexoon na bay jaxasoo ñoom ndax kenn ku ne doo la jàppee jikkoom dalay sekk fa nga ne mu ànd sa jikko dalay fekk fa nga ne mu ànd ak yow ci sa jikko fexe ba moom la ci sa jikko nag te doo sañ a demati fenn waaye ku xamoon ñi mu doon àndal ku xamoon ñi muy àndal xoolal tubaab bi la ñu fa nekkoon rek da ngay tàmbalee ci Cheikh Jaxate mbokkam def noonu rek am na ñu neexut jaxasool de waaye moom dalay fekk fa nga ne mu ànd ak yow ci sa jikko ba lim bëgg ci yow mu def ko ci sa jikko ba noppi nag da ko dootoo ko mën a baax ndax da koy miin bu boobaa ndax sa jikko loola fekk ànd ca yow ba nga miin ko day nit ku baax defar nit moom xanaa defar ci ngay wax waaye waaye boo xoolee ñim àndal ñëpp rek kenn ku ne am na lu mu def ci yow loo xam ne doo ko fàtte mukk fullaam rek ak faydaam ndax nit koo xam ne nii boo dee xool ci àdduna ëppale woo ko ci nes nes yi mën a gis ba nga mën a tiitaru bu dee ci wàllu fulla tamit nag danga xam ne kii ëppoo ko fulla te ñemewoo koo jege te moo gën a neex na moo gën a lewet nag xarum yar ci ko ko miin waaye mënoo koo séen mu ko yàpp ko te bu dee xoy-xoy adduna yi te moo la ko ëppale nag ñetti mbubu lay tegale fanweeri mètre takk weer yoo xam ne nii seexu bi mënu ko am ab abla dusami te bu fi jógee jëm Dakar ñeenti oto lay àndal dem Karim Karim Fall kenn mësu koo yab de waaye fulla la ànde woon ak nit ñi ak fayda ba kenn mënu ko yëpp waaye comme jaxasool la nga ko bëgg nag moom ndax xër na te mën naa joxe te wax ci ko wax ci suuf fi mu la daal loolu mooy mooy jikkoom joo xam ne bu ko ñëpp royoon lépp mën naa baax jamono nag fii mu toll wax ci ko wax ci suuf a bari. te seen jamono yooyu maanaam euh, ni mu xeertale woon ndaw ñi ci jàng xam nga fi ne nii dafa mel ne alxuraan gën naa fees ci ndaw ñi. ci yi jël ay ay ay ay di jël ay coupe fu nekk ba ci ba ci bitim réew euh, yow ci seen jamono Cheikh Abdoul Ahad ku mas a bind kaamil yët ko nan la daa jëflante ak ak def lu man ak lu mënul rek man de ba ma ko ko joxee dane ma keroog bi ma lay wax ngeen ànd dem Abdou Samad la ma booleel Mourtala ñu dem Bambuk mu ne damaa bëgg li fépp jaar ngeen jaar fa waaye nag bu ngeen ko defee lu ngeen bëgg dinaa ci de ma ne la ma waxoon def na ko lu mu am de moom defal na ma ci la man Ibra Gaye la ma lu xew moo indi teraanga ji sama kër la ca des nag moom mooy jàngal moom jàngale jàngale moom kenn mënu ko cee fekk ak liggéey fanweer yi jëwlin ci dongay laxasaay moom laa ko njëkk a gisee ci àdduna moom mu di leen liggéeyloo te lu mu ca jógee lu ne lu mu ca jëlee lu ne jox ko Sëñ Tuubaa njàng moom daal yi kaamil yi kay li ko indi indi la lu ne amul kenn ku sant Mbàkke ko fi sëb kaamil nekkul këy kaamilub sët kaamilu doom bu fa nekkul amul te lépp ci loxoom nga koy teg te boo koy teg ci loxoom mu jox la teraanga joo xam ne bala nga faa jógee da nga weer wala ñaari weer loo xam ne doo doo bëgg dara loolee nag moo taxoon gone yi daa xarutoo ba ma ko lool xalaat ak jamono jii nag nga xam ne lii nag moom dafa xew dafa am lu ñu ubbi loo xam ne kenn xamul lu koy tëjagum. xam nga moom dafa tàmbalee ci bàqara ba naasi doomi Sëñ Tuubaa nag moroomam wala nga di ko jéem a roy ci lu ne ko yaay doomi Sëriñ Tuubaa waaye moom waxtaan nu wax naag noonu ku bëgg a dund ci adduna te doo yàq dara wala nga nga wala nga wala nga nga nga wala wala wala la nga doon mu nga xam ko da ngay déglu ay waxtaanam man de man de la tàmbalee bam mu la mu njëkk a waxtaan ba li mu mujj waxtaan am naa ko danaay toog nag di ci dugg di ko di ko déglu ngir bëgg a xam kan sama bopp waaye xam naa ne taalibe bi Sëñ Tuubaa moom ku ko doon moom yor nga matériel moom doon taalibe bi Sëñ Tuubaa ku ko doon am nga matériel boo xam ne kenn du ko yàq te jàngal na na ko nag nit nag mënoo ne lam wax lépp nangam ak nangam la ndax fa may waxee doo ko fekkee la may wax tam dégg rek nga ca man lañ nga cee mën a xamit nga ko mën a xam nga mën a xam waaye moom musta wax lu doonut li sëriñ bi digle musta wax lu doonut li sëriñ bi sob musta wax lu sëriñ bi di nga xam ne bu ñëwaatoon du soppi aw tooginam moom. am nag loo xam ne daanaka ginnaaw dongalaa ñu yilif ma du du ma sañ a joxe ndigal di waaye nag man ñi ma tollool sama njaboot ñu góorgóor jaamu yàlla te liggéey rek buñ ko wut buñ ko am buñ ko defee jot doon ko am bay mën a dugg ci leneen te dugg ci leneen rek boo jaamoo yàlla na nga liggéey loo bëgg loo bëgg mën nga ko am loolu nag mooy li nga xam ne ci lañ war a tënku waaye nag digaluma ko kenn ndax suñu maa joxe baat waaye ñi nga xam ne ñoom. danañ may déglu buñ bu ma sañoon ñu jaamu Yàlla te liggéey daal rek buñ ko defee liñ bëgg lépp mën nañ ko am ba xam nga jikko dañ ne borom pax jikko si daal moom dana jafe roy ci dara waaye boo ko dee gis ak di ko dégg dana tax nga am jom te ko am jom ku ko am rek leneen lu ñuy mën a lijjanti si jikko tam duñ ko mën a gis ndax jom jaay tax moom loolu fi ay moromam def na def na ko rek waaye li ma ci gën a marqué daal mooy yokku jumaa ji moom ndax sëriñ bi tamit nag mu tànk ginnaaw tànkal la am lañ wax kon yokkal ku yokkul yaa koy waaye moom yokk na moom moom daal yàlla ko yàlla fay rek. la daal moom la doon la yore woon lépp nii mu demee daal demewu woon ba mu fi nekk kër sëriñ Tuubaa yi moom kër sëriñ Tuubaa lañu dongo yi dongo yi sëriñ Tuubaa lañu yëf yëf yi sëriñ Tuubaa lañu nag boo yoru sa yëf yi sëriñ Tuubaa waaye moom yoroon na ko moom li def nag mooy moom. li mu matoon a def daal def na ko ci li ñu xam li ci des nag da ci am loo xam ne suñu yoon nekku ci te duñ ko sañ waaye moom daal jaajëf jaajëfati du moom daal li li tubaab di wax du tricher loolu mooy dëgg nag moom foo lu mat a def daal def na ko ci ñoom ndax moom amut suñ son bi la moom mooy mbokkam ak suñ Saliou mooy mbokkam moom suñ tubaab la jël xool si ñoom du xaajal ma soxla la an si yebdu nag waaw te boobu mënoon na ni Saliou wala mënoon son bu waaye loolu ndax da ko daal seeral sëñ Abdou te booba yéen ñi xam ngeen ne fekk ngeen noonee nag la mel dafa seen wecc yàlla nu yàlla taas ci barkeem te yokk leeram. man de maa maa ngi koy ñaanal fu ma toll ndax moom laa ko moom laa ko mënal nag ndax ab taalibe la sëñ Tuubaa la gëm te c'est euh, wax dëgg yàlla euh, ñoom boole nañ ma ci seen bopp waaye moom de ni may ñaanale Cheikh moom lu Fadal laa koy ñaanale dama koy tudd de turam njabootam gi mu fi bàyyi tamit nag yàlla boole na ak ñoom amuñu xaar ma yàlla. di ñaan daal seen barke ba yàlla na leen dal da cay dolli ko nag mooy nu nu ñi ma war waxal rek nu góorgóorlu rek te xam ne li fi mat a def mag ñi def nañ ko ba noppi dara kenn mënu ko yàq xanaa ke nit koy yàqu rek yàqu waaye li fi ne kenn mënu ko yàq wax ji nag bari na lool waaye ku wax del wax loo xam tey wax looy def te wuti kilifa nag te toog te yam te noppi bu ñu ko defee lépp mën naa baax. sa sa digg ak sëñ Seydi tamit. Euh, gis nañ ci man mën nañ ci seer ndax gis nañ ne liggéey yi yi ñuy defal sëriñ bi euh, ci Daaru Salaam Bokki Barga nga xam ne fa lay liggéeyale sëriñ Touba saa su ñëwee da ngay fay dem yor sa dalu bopp loolu it xam naa ne am na lu ko waral. Ah, ah, yow nag xam nga sëñ Siidu nag du sama morom man am saay sama morom moom ma ko yëgal ginnaaw sëñ Siidu du sama morom ndax sama kilifa te man duma jaxasoo sama kilifa te xanaa xamoo ne sëñ bi koo jaxasool rek ci jamono ji ku sëñ doomam. man ngaa gis ci moom loo xebet ma tax du ma jaxasoog sama kilifa waaye nag samay morom laa jaxasool am saa ma fa te damaa xamoon waajuram wu jigéen xamoon ko moom ci boppam mi ngi kër Cheikh Jaxate jàng rakk Cheikh Jaxate ak yoroon di ko jàngal boobu Abdoulaye mii di seen ma nga fa moom di jàng man ne di jàng ni ñoom rek waaye sama xarita moom moom ma fa yóbbu ak it damaa defut lu gën loola liggéeyal bi ma ci woo foo ma woo fekk la fa waaye nag si du sama morom ma may jaxasoo moom am sa laa jaxasool di ñaan di ko ñaanal rek mu yàgg fi te wér te yàgg taxawee bis bi yéen nag eh, nit ki moom wàcc nañu bu dee sëriñ Cerno bu dee sëriñ Mataar la ko war def na ko jur nañu leen fi ñu leen war a juree di gor ñoom jigéen ñi tam gor lañu yéen ngeen judd nag doon gor gore nag yéen a koy wutal seen bopp nii rek la jàpp leen te bu leen bàyyi noonu nag ak ñi ma ko sañ a waxal muy samay moroom kenn duñu topp ci suñ ci suñuy benk ñenke da ngeen ñuy jàpp ngir yàlla rek ndax noo ko bokk bu yàqoon mu yàqu bu baaxee bu baax rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa jërëjëf sëriñ Cheikh Oumy Mbacké mu Cheikh Abdoul Fadal ñu ngi lay sant bu baax a baax ci kàddu yi njëriñ yi bëri na lool liñ ci mën a jëriñoo it bëri na lool jàpp naa ne bokk yi ñuy seetaan ak yi ñuy déglu Euh, danañ ci jariñu bu baax a baax kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax te di la ñaanal gudd fan ak wér di la sant it ci turu kilifa yi yi nga xam ne ñoo ñuy liggéeyloo di sant it bokk yi nga xam ne teewoon nañ fi léegi kon jotaay bi moom lañ amoon fii ci kër Serigne Cheikh Oumy Mbacke mu Cheikh Abdoul Fadal ngir waajtaayu ñaar fukki fan ak ñett ci magalu Cheikh Abdoul Ahad ci taxawaayu commission culturelle bi nga xam ne ñoom la Serigne si di dénk lu ci wàllu culture et communication ci màggalu Cheikh Abdoul Ahad ñu teewoon ci jotaay bi e, di sëriñ Abdoul Ahad Ka mu sëriñ Modou Kabir Ka e, sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Mokhtar Fati Kani sëriñ Abdoul Ahad maam Asta mu bàyyi sëriñ Boussofé mu sëriñ Mbacke Kani sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Abdoul Moutalib e, sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ seex Oumy moom it day dugg ci suñ biir ak sëriñ Takku Mbacke mu sëriñ Cheikh Oumy sëriñ Cheikh Gaawaan mu sëriñ Cheikh Oumy ak sëriñ Nasi Ndiaye Maysa sëriñ nañ fi doon jëmmal jataay bi kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la di leen dig daje ci beneen jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu